mais tay en parlant de euh, bu demee day gagner mhm. mangi ngi diakarlo bu Bouba Ndour di affirmer les mêmes propos que toi mais ba Badara Gadiaga da dako tontou ko tontu da tontu tontu bu am solo bu am maanaam je dis pas qu'il a raison mhm. waxuma la yow tu tort mhm. mais manam wax ni jomay jomay mo fi nek taxul jomay nek fi il faut être conscient de cela fuul bi top Sonko taxul ñu né Sonko fi nek gis nga sénégalais dañuy jaawale fuul ak les responsables qui vont voter est-ce que xam nga ñiy topp Sonko la plupart du du temps est-ce que am nañ carte d'identité est-ce que am nañ carte électeur buy voter très bien loolu question là. Benen bi ci top. Mhm. Tay man je pense pas wax ko fi waxat ko sama bir scandale du jour gëwuma woon ni bu ñu élection sax premier tour lay jeex Lolu man mosuma ko nangu sama part personnelle mhm. voilà mu ngi non. très bien Légui dama la né gis nga ñi génn ci biti mhm. du ñoo voter Lolu wër na ñëpp ñi toog ñoo gën a bari comprendre nga mais tey dama la ne. Mhm. toogal ak ay ñi majeur maanaam loolu dafa yomb daf taxaw seetlu bi ñi nga xamante ni mat nañu biir na la ni ñii am nañ carte d'identité ay nit ñu mat responsable nga leen di laaj dañ lay wax réew mi. donc yéen da ngeen ragal. maanaam Sénégal non man waxuma du ma ne ragal la. waaw d'une part entre guillemets ragal ah, ragal ah waaw. entre guillemets nekk. ragal. ragal man non la koy jàppee. da ngeen ragal jomay mais man lima geumon da ngeen mës ragal Sonko mooy que ni. da ngeen mës ragal Sonko non Sonko peut-être xam nga problème bi fan la ne. Mhm. dama méré ñi fi ne parce que importance bi Sonko am doole bi Sonko am ak fi Sonko egg tay mhm. Macky Sall moko ko liggéey ci Sonko. Hmm? ak pouvoir bi ñom ñoko ko liggéey Sonko ño tax mu am importance bi mom am tax mu am doole bi mu am ño tax mu yegg fi mu yegg. ñom la ñoo ko defar ñoo ko liggéey génné ko présenté ko c'est. est-ce que xam nga wax la benn bir sénégalais dafa dafa mën sot Mhm. te dafa bañ ku ñuy néewal doole. effectivement té Sonko dafa culpabiliser wu. wane ni dañ koy jaay doole wane ni dañ koy néewal doole. légui sénégalais dafa bëri hmm ñëpp daw tafu dañu bax baax ñun. comprendre nga. Mhm. li mo tax Sonko am importance peut-être bii mu am mais Sonko buñ ko tégon rek de côté peut-être sax bañ ko boole ci yenn yi amana tay fi mu yegg du fi yegg mais nak buñu démé ba yegg fi lépp lo gis si àdduna dafa am ay règles ak nu muy doxé élection dañ ko war a organiser biir réew mi ñu jàll ci leneen parce que dañu sonn Zeyna kenn mënatul liggéey correctement. wallaahi dëgg la kenn mënatul daf dara ci jàmm. wallaahi dëgg la. sa njaboot da ngay nekk à l'extérieur sax am problème. ndax mënuñu nekk si jàmm ñii ñu ngi yàq seen magasin ndaw ñi ñoo ngi dee. léegi lii nga yaakaar ne ba kañ. ñu pousse élection yi quinze décembre ñu demaat ba foofu ñu ne non lii ak lii ñu. loolu kay sañuñu ko. lépp ñu fii Sénégal 15 bu ñu miimal dara.

foo ma seen Macky Sall ngay gis ma taxaw di kon moyen te ba tey ci laa ne. Hmm. mais àndoo ci décision bi. mais décision bii nii ñu reporter ay élections ci motif yii nii ànduma ci man. personne wéetoo ci de mais kii Oustaz Modou Fall loolu la wax de nee na Macky rek lay topp mais àndul ci lii.